pour répondre ci invitation bi nga xam ni mouvement jadis ak waa réew mi ak coalition Benno Bokk Yaakaar ñëpp ñoo participé monsieur le ministre Pape Amadou Ndiaye sama frère sama mag nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement bi pour représenter Thiès may jottali nuyoo ak ziaram di ko sant di ko gërëm république muy le ministre Augustin Tine mu ngi leen di jéggalu dafa nekk tey yéen président de la république am pour ndaw Sénégal kenn amul nu mu toll moo tax rek ñu bëgg les jeunes du Sénégal ngeen garde l'espoir l'espoir est permis pour la jeunesse sénégalaise parce que le président de la république jël na ay initiative heureuse ay initiative yoo xam ni dina tax ndaw bu nekk am ci loo jàpp comprendre le message jeunesse bi jeunesse bi lenn mooy jeunes yi bëgg nañu leen bàyyi xel jeunes yi bëgg nañu leen jàppale président de la république bàyyi nañu xel bu baax ba tax na ay décision instruire gouvernement bi ñu mobiliser quatre cent cinquante milliards yoo xam moom la ñu jëm léegi année mooy at nekk at nekk rek man li ma bëgg mooy ay action yu concret loo xam ne dama koy teg teew bu ko sëñ yéen war ngeen xam ku ñu nekk yéen lañ fa nekkal inquiétude waa Thiès dañoo am seen dal waa Thiès dañoo am confiance ci président de la République ak ci Macky Sall moo tax kenn demul Thiès jeune Thiès ak femme Thiès mérite nañu une attention particulière du président de la République et du président te mbirum numérique mbirum numérique bi nga xam ne moom la ma président dégg waa Thiès na seen xel dal ndax ci numérique bi président la république depuis bi ñëwee ci bopp nguur bi président Macky Sall investir nañu plus de président def na ko bu ay infrastructure ba tax il faut léegi jeunes yi commencé ko capitaliser te ci ñun ci suñu département am nañu.